<laughs> neen daal coono ah mbaa kenn leen naka suba si am ngeen jàmm ah mën a xëri am ngeen jàmma yéen a ngi noo sax ah waaw kontaan ci yéen de ah mbaa kenn leen léegi mbokk yi dama ni ñi ne ci YouTube bi nanu layam layami dem TikTok yokku compte ba doole ñi ne ci TikTok bi nañu layam layami nag dem YouTube nag yokku compte doole. <laughs> ah waaye xëri doxul day raam de lii du àdduna de sama ànd ak yéen lii de dama ni xëri doxul day laam maa ngi raam de raam bii may raam nag tegut fenn dama ni eh layam layam leen yokk YouTube bi doole nag ah waa TikTok yéen lan la na ngeen dafa kiwoon mbaa kenn yebu leen am ngeen jàmm naka Sénégal ah noonu la de àdduna de yàllaa ko moom léegi <laughs> Anta Babacar Ngom na ngeen defar coono Anta Babacar na nga defar coono yaay booy mbaa kenn yebu la Anta Anta ndax am nga jàmm Anta ay waay bu sàmm Anta ngoog de Anta na nga coono Anta naka nen yi nag naka nen yi naka sa nen yi mi ngi jara naka cooj naka lëfi puul naka ginaar yi yaa ngi am hmm? anta mbagen dia anta anda nak nga jam ye ye ye anda anda anta li nga teg suñu loxo tegu teguluwul de anta na nga def ak coono anta ay ay ay ay mbagen yabula anta anta xanaa xanaa yëf yi mana métti daa mujj métti sa loxo xanaa maanaam ay walu parrainage ak yooyu da ngaa am wala lan la malum parrainage ak yooyu wër mu métti meeg layam layam yakum gasoil bi ah gasoil wala essence be jeex wala da nga am problème parrainage ba nga genn bëgg tek way faqir suñu loxo ñun sénégalais no anta babakar ngom nag tiita parent pour ki kona rambo sibor wala zankulum vandam dama ni anta babakar yow bo jëlé faqir yow bo jëlé faqir ba ko jël ni ciix faqir taf ko sa bop ndax lan bëgg sénégalais yërem la def la jitum réew anta babakar ngom ay waaye Anta Babacar yow doo faqir yow jigéen faqir de dégg naa baaram no stress nag wax lay kàddu yi am fulla ak fayda ni la baxam bi ngay jàng mas ngaa toog ba mu neex la sa xel mi nekk ci montre te amoo loo jënde montre nga jël kere kere desee sa loxo bi montre baara dellu laaj ni la ba sam baxam mas ngaa toog ba jàgg jël sa kaye layam layam desee ci avion desee nit kuy layam layam ni day yek ci avion bi nek sa yaay ngay yu bu makka ndax lolu dal na la anta babakar ngom ndax mas nga rere sombi anta babakar ngom ndax mas nga xey mas nga xey dëpp cin anta babakar ngom ndax mas nga xey wara jangi ni papa may ma 100 francs mun la tay keur gi dara fi anta babakar ngom ndax mas nga xey dem jangi am problème mu kay devoir <laughs> Anta Babacar Ngom kon ça ça veut dire doo faqiir yow doo faqiir xam nga faqiir yow doo faqiir yow booy booy woote faqiir ba fekk ma fi man rek xëri man xëri ngay woote ak ñàkk ak ñàkk yor ba ba fekk ma fi man xëri da ngay xaar ndax Anta Babacar Ngom mosoo diñe man loolu leer na ma olof yi ndax xam ngeen diñe mag ñi man lañ koo xam mais xay na xale yi layam layam yi 2023 xamuñu diñe mais nag ñàkkul ñu ko ci xam ndax ay doomi wolox ngeen mooy nga xëy suba ba ngoon jot kin du tàkk sa kër doo añ doo reer doo ndékki an sa Babacar Ngom ndax mas ngaa toog ba ngoon jot amooloo loo añe doon gone ngay layam layami xool jalu suuf ba gën a jiga sa koñ nga dem ne ci nongu di mëkk suuf anta Babacar Ngom man lan moo tax ma xiiboon toll nii ma toll xoolal sama faari Anta Babacar Ngom ñàkkoo de yow yow eh doo faqiir Anta Babacar Ngom li nga xëy di ko jaay ci say nen li ngay xëy di jaay ci say nen li ngay xëy di jaay say lëf de poule Anta Babacar li ngay xëy di jaay ci pochin sa kanam di ma saf ginaarug ndereng nga taxaw fii naan ma wooy ñun ay faqiir lañ ay waay Anta Babacar Ngom yow booy woote faqiir yaa na nga yaakaar ne yow boo tegee faqiir suñu loxo la faqirisation boo ko tegee suñu loxo nga bëgg a bokk ak dukkure ndey ak bàyyi nag te bukkure fa dukkure fa même daa yaatu ci réew mi ñun ba ñuy bokk ak dukkure xewoo ñun ba ñuy bokk ak dukkure ah borom kañ la ñuy am ba ñuy bokk ak moom yow xewoo ba ñuy bokk ak dukkure yaa ngi xëy yor sa oto distance cent cinquante kilomètres nga koy commandé lamp làmp yay tàkk sareetu mbaam sax yoruñu ko Anta Babacar ngoom ndax xam nga ni ba tey Sénégal am na ci kër yoo xamante ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu dama ne Anta Babacar ngoom na defak def ak coono waaye faqiir boo koy wootee euh, sa waay <laughs> woy wi këpp gaal Anta kenn du ko woy ci tefes yow dèjà yow dèjà yow yow ñi nga bëgg a jiite ay faqiir lañu ñun yoruñu ñun kañ lañuy am chaque jour du ko wax ko wala laaj leen ko. ñun xam nañ ni ñun duñ tekki ñun xam nañ duñ tekki mom ñun moom xam nañ duñ am waye nak wax deug yalla nak waye sant yalla anta baba kon ngom kon bu dee da nga yaakar ne bo wote faqir ni yoro manam faqir nga new di doole pour lan pour ñu jox la rew mi nii <laughs> bàyyi aalisee na nag yon di faqir bàyyi aali seen mii nekk ci bopp réew mi tey moo la gënoon di faqiir <laughs> moo la gënoon di faqiir moo la gënoon faqiir man dawal na mbege jamonoy dawal mbege bàyyi aali dawal na mbege bàyyi aali lakk na përëm jaay bàyyi aali seen mii lakk na përëm jaay bàyyi aali seen mii bàyyi aali seen mii bàyyi aali faqiir ku ko gën faqiir waxee léegi <laughs> àdduna <laughs> Anta Babacar Ngom nee na yorut ay nelawam doyul waaye loolu nag boo koy woote ci réew mi dangay dem ba ay Congo wala ay Bénin wala ay Afrique du Sud wala Inde yow nga joytu leen sax faqir waaye fii Sénégal fii non fi la boojoo ñàkk anta <laughs> Babacar maa taxul ñu jox la réew mi de laa jël beneen paquet foofu baaxul yow li nga yor ci entreprise anta Babacar Ngom na nga def coono sa yor ko ci entreprise tey nga taxaw fi naan ñu faqeer nga néew di doole yoro Oh, yoro xam nga lii nag mooy ñaawal lii mooy ñaawal kii kii Anta Babacar da nga yaakaaroon ne boo waxee boo génnee kàddu yi nit ñi dañ lay jërëm waaye ñun dañ laa jéppi da laa jéppi Anta Babacar fii ma toog nii ba léegi ndekkee gu ma de eh il est onze heures moins <laughs> ba léegi ndekkee gu ma eh, jóg léegi après dem la jënti ko mën a ndékki mën a génn laayam laayam bi bu añ jotee ma daw dàqwaat bu reer jotee ma daw dàqwaat <laughs> te yow leer na ma ne yaa ngi laayam laayam bi sa frigo nga rangale fay ginaar di noos tay nga jog fi nan ñu fàqir nga yalla rëbb na la de santal yalla anta ga ngom na nga def ak ciono santal yalla nga taxaw fi nan ñu fàqir nga xam nga yow dag ñuy ñaawal xam nga yow dag ñuy ñaawal euh, anta ga nak yaa ñuy offenser de yaa ñuy offenser yaa ñuy toñ yaa ñuy roubé ah dañ la yaba ci ñun pour ngeen pour nga humilier ah suñu ñak gi nga nu bëgg xasse baba Babacar deg na la nak suñu ñak gi manam ñak yor gi ñak yor ah Anta ka ndax mas nga ma gis man xëri sama li ma changé ko li xol bu ma yëkkatee sama fanboy boy sax day feeñ Anta baba ndax mas nga ma gis ma li li li lii ma sol ma changé ko Anta Babacar fi la sama darajin nak ndax mas nggak gis xëri changé ko Anta Babacar te chaque vidéo la ngay sol kon yow bo dé wote taxul ñu fal la de taxul ñu fal la de da ñàkk yoroo li nga yor ci nen baxal ci yéey li nga yor ci nen baxal ci lekk li nga yor ci nen baxal ko wut poobar poobar say nen lekk say nen Anta Babacar na def ak coono ah ñun ngay ñaawal ah ñàkk gi suñu ñak gi ñu ñak ñun ëxlu sénégalais ñak ba amuñu ko ñu dimbali ñak ba amuñu ko ñu taxaw yaakar kenn nak muy sayidina ousmane sonko mu sel mi ñew genn ñu ci ndóol ñew genn ñu ci ndóol donte que buñ amul lu ñu denc sax buñ xëyee layam layam daani doole anta baba ko ñu wéx 50000 sax xeebuñu ko <laughs> ta man leer na ma ni leer na ma ni à peu près yow wéx bu dem man nga dajal 50 millions man faqeer bu mag bi wer 50000 sax dama koy lijeent damay lijeent wer 50000 taxaw tay nga taxaw fi di layam layam nan ñu faqeer nga hein do am yow de bo amul barke yow mal xulo jël basar noppi nga bo amul mom baye bo nga jënd juróom ñaat juróom-ñaari mètre de perkal xol garab ga gina a gudd seen koñ gina ndjol nga jënd buumuk nak pandre sa bop nak dese nak une bonne fois pour tout comme yoroo dootoo yor comme yoro doto yor anta babakar offensé nga ñu de li nga ñu wax nak met nañu ba ci kanamu yalla yow waxo ñu de waxo sa bop de ñun ngay wax ñaka yor gi ni waxo sa bop de yow sa bop xam nga ni waxo sa bop ñun ngay togn manam ñun sénégalais yoru yoru ñu ah ñu sa yoru ñu de tek mom pour ñu def ko du yom tek mom pour def ko du yom tek rek tek pour am ni tekki nii saawaan ba awan nga gis jeune bu yor du dul jeex laa dafa fokki jiis nga gis jën jeune bu yor xaalis bu baree baree bari ah loolu moom duñ ko gaa tekki moom non ñun duñ am moom wax na dëgg moom am moom duñ ko def moom ndax xam nga lan moo tax Sénégal da ngay fay weer cent cinquante mille dépense deux cent mille war la kañ ngay denc <laughs> da ngay gis da ngay gis ouvrier deux cent mille bu weer dee këram lam fay lam fay fere ci dépense ak ëpp na quatre cent mille <laughs> da ngay jël fayeeku la nga yor def ko ci kër gi ba pare <laughs> yotal borom bitig bi jiital daw dàqe te Anta Babacar loolu daru la Anta Babacar sa bureau ngay toog kilim bi di ëpp waaye ay te bu yor bi million nga yor anta babacar man mi la xool dama peel peel peel peel dama peel peel peel peel peel jurna juromi téeméer bi jurna juromi téeméer bi liñ ci daj liñ ci daj pour ñu am weer cent cinquante mille problème la yow nga yor sa leuf de poule di jaay say nen aduna bépp di consommer say nen ak say ginaar ngay layam layami nonu dañu naan faqir nga yalla bo am yow bo amul yalla bo am yow bo amul yalla bo am ab Fakir de déposer candidat présidentiel non ce ben fakir rek moko man rek Ousmane Sonko ay mais ñun askan bëgg donc ku ku nit ñi bëgg ko man de déposer candidat pour être une président de la république lolo, fakir fakir bu nit loolu fa bu fekke euro bu fekke euro gi nga wote ni bu fekke euro ni ñun bo campagne ba ci all bi pan gasoil man duma la pousse de sta sénégalais duma la pousse bis bo layam layamee tal say auto dugg ci all bi di campagne ba pan gasoil ci all bi comme nga ne faqir nga yow mooy xuloo jët basar laa wax duma la pousse bu len ko pousse de dekk bu mu dugg bu fa pané gasoil bu len ko pousse ndax faqir du politique bu dee amono ak yàlla am man man li nga amé ay eh, li nga ñaké neex na ma ay way nan yalla na ñak ni nga ñaké Anta babakar bu dee nag da nga yaakaar ne boo layam layamee wax ko ñun dañ lay yërëm wala non tel n'est pas le cas ñun fii benn faqir rek lañ fi ñeewantal yërëm ko bëgg ko te yàlla kese tax moo mën a xëy demandé deux cent millions ñu réglé ko ci vingt quatre heures ak suñuy fukk fukk ak suñuy juróom juróom muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi point bu dee yoroo mën ngaa dallu de eh Anta Babacar bu dee yoroo mën ngaa dallu bu dee yoroo mën ngaa dallu de fii benn faq mo am droit déposer candidat pour être président de la république ñun sénégalais ñu fal ko wa ak wa batiman anta babacar ngom néma né nga nan ma dékun sékk la da jaajatul ginar gu ñur waxo fi dara yalla ma ca jullu nga nan ma gëj gi yàpp la bo amul yalla bo am ah anta babacar ngom nak offense nga yalla nak offense nga yalla nak offense nga yalla de offensé nga yàlla de yow yàlla bind la nga doon xale bu ndaw may la lu mayul ñu bari pourtant li nga yor nii am na jigéen ñu la ko dàq fuuf am na jigéen ñu la gën a ñeme coono yii am na jigéen ñu la gën a ñeme coono boo demee ko tey mboora jigéen ñi quatre heures du matin la ñuy yeewu dugg ci àll bi quatre heures du matin la ñuy yeewu dugg ci àll bi dem ci tool yi di layam layami te weer pour mu daj pour ñu dajale cinquante mille rek problème la yow nga toog sa kilim ah, say say say sa entreprise de la verte ay million par mois nga taxaw fi dañu joy nan ñu néew du doole ga yalla bo am bu nak da nga yaakar bo fi jooyee fàqir ñu yërëm la ñun ñun ñun bañ na ba ñun biñ man biñ may ngënd sax dañ ko kolo kolo kolo kolo ngënte kolo kolo bi ma juddoo ban may ngënte dañ ko kolo kolo diko lijeenti 100 200 pour mën a xar kon yow kon yow do fàqir yow fàqir yu mag yaa ngi nii <laughs> yow doo fàqir ah Anta Babacar yow yor yow yor nga yow yor nga comme boo xëyee añ bu heure reer jotee nga reer bu ndekki jotee nga ndekki noo yor nga santaal santaal ban heure a jot onze heures nangam ba léegi xaw ma xaw ma ba xam ni laa ndekkeem déet de naa def ah am nga jàmm <laughs> dootoo am de te yàlla rëbb na la nag yàlla rëbb na bépp doomu aadama bu mu may ay teraanga te doylu woo yàlla dafa rëbb ku ñàkk saalit ku ñak salit yoro say nelaw doyul nga salit yalla rëbb na la waxuma la ku yalla may ay milliards nga taxaw fi nan ñu yoruma ma bëgg ñu jappalé ma yow yalla yalla na la wan bopam bëccëgu na a kàmm da ngay xey rek sa poussin yépp dé <laughs> da ngay xëy dugal say poussin ci plaay bi yépp xey dé nga xey poussin yépp medd nak yalla di la wan boppam ndax yow yalla la may yow la gina compliqué ci nga ne ay poussin yari yari ginaar yari ginaar yàlla mën naa xëy rek raafal sa poulailler bi ginaar yi a ndax yàllaa yor ruu te yow ruu ngay yar da ci tedd yow yàlla bu xëyoon rey sa poulailler yëpp nooy def <laughs> c'est le meilleur vendeur de poussin du Sénégal Sénégal ku fi jaay rek moo lay ku yar ginaar pour ngeen xam ko tey ku yar ginaar ku yëngu ci poulailler Sénégal di élever ay poussin di jaay ay poussin bay ngay jaay ay ginaar yu mag ginaar yi 3500 ak 4000 yii entreprise bay fonde ginaar ya moy borom ba pare di taxaw fi nan ñu nan ñu <laughs> nan ñu faqir la <laughs> kii moy defé ya gi moy defé ya gi nitu dara ku jaay ginar sénégal rek entreprise nga ko jënde <laughs> ki ki ki mom mom entreprise bu leuf de pool bi ginar gu dugg sénégal rek gu dugg sénégal rek poulayam la jaar taxaw fi di ñu di faqir yalla bo am yow yàlla boo am yàlla la yàlla wan boppam di nga yeexal noonu président ndax doylu doylu yow na ngaa goree di kii yow duñ la fal duñ la